Ya kita ci ndigalul sëriñ Mor Fall Ndiarème sëriñ Abo Gaye secrétaire général sëriñ Aliou Badara Ndiaye yore seen kaddu Baye Modou Gaye jëwriñu commission sociale sëriñ Babacar Ndiouk di coordinateur u section Touba mboolem dongo bu mës a jaar ci daaray sëriñ Mor Fall Ndiarème te nekkee section Touba ak li ko wër ñu ngi leen di yëgal seen première réunion bu ñuy waajal ñu jàpp ko ajjuma ñaar fukki fan ak ñett ci weeru safar benn fan ci weeru octobre 2021 ma ngay amee Touba mosquée daaray Kamil kër sëriñ Ndiogu Mbacke li waral ndaje mi ak waxtaan wi moo di mboolem dongo yi mës a jaar ci sëriñ Mor Fall ñoo fassiyene taxawu dara ja suqali ko yaatal ko dundal ko waxtane li ñu wessu ak fiñu tollu ak seeni mebet ak seeni xemem teef delo njukkal serigne Mor Fall ma leen jangal taxawu seen rakk ya nek ci dara ja ñu ngi ciy sàkku teewaayu képp ko ma sa jaar ci dara ja ta nek ci section Touba ak liko wër di soññi mbollem jeewri ñi nek ci gox ya fassanti ko ci rew mi serigne Basirou Fall ak mbollem ba Tamba serigne mustapha Diop ak mbollem ba Goudiri serigne mustapha sek ak mbollem ba Fouta serigne mustapha Diakhaté ak mbollem ba Kaolack ñu ngi ko yeggal wa section Dakar ci njitul serigne Alhaji Tall serigne Modou sek secrétaire général bi ko sàkku yu bépp membre gor ak jigéen mak ak ndaw ci réew mi ak bitim réew képp ko xam man nga ngaa teew moo leen gënal ku ta teew nak man nga joxe sa addiya jaarale ko ci wéef wala onas moné Serigne Babacar ndiou coordinateur bi 77 970 33 11 ku ci bëgg ay léral nak man na jokkoo ak Serigne Amdi mbay Touba marché Ocass 77 786 22 32 wala Serigne Aliou Badara ndjay 76 011 09 33 noo ngi ñaan ku teew ci bisba ba mu tabal ci aw ñaxam sun borom defal ko ngeerumul yalla ak pajuk aajo alcorane alquranul karim ngay Serigne Mor Mor Fall yéen ñoo wooteem ndaje ngir fedd liy kóllëre ak delloo njukkal sëriñ Mor Fall daara moo leen jàngal yar leen yarub diine di leen ca nampal ku tax nga am taalibe diine ak ngor ba man di sant yàlla jar na sargal ku tax nga xam bur yàlla ak yonen ba xam sa waree fi diine jar na màggal donga yu am ngor di siyaar di màggal teral sëriñ daara ya di jàngal sëriñ Mor yal na ko yàlla may wér ak gudd fan ak donga yi mu àndal ku teew ca bis ba yàlla faj say aajo dunya wa uxra na ko la qualité